Unacois Jàppoo Thiès hmm. Dame Diagne président régional Unacois Jàppoo Thiès li tax ñu génn tey jii mooy foire yi ñuy def ci dëkk bi ci jamonoy korite ak jamonoy tabaski ci la commerçant yi dajaloo di fotaat li ñuy am di fay taxes yi di fay patente di fay juut yi loolu moo tax ñu ne début di ramadan balaa demi di tabaski bu kenn defati foire ci dëkk bi su passé nag ñu organiser foire yu ko bëgg a foire nga foire mais terewuñ kenn ku foire mais Alioune Sow moom mooy seul maire euh, Thiès Ouest bi xam ne moo sonal commerçant yi sonal dëkk bi nuy ñaan nag ñu jëlee ko fi defal nu délégation spéciale ndax waxtaan nag moom ci jàmm ba tàyyi mu mu të moo tax moom mooy maye autorisation yi di ko may benn société privée buy def foire moo tax ñu bëgg léegi ñu mu mu bàyyi ko mu bàyyi autorisation yi muy joxe léegi nag marché yëpp génn nañu Thiès yëpp génn nañu li ñuy wax commerçant yi mooy li fekk bi arrêté wul fii tabaski bu kenn fay juuti bu kenn fay patante ku gis ku gis benn juuti bu ñëw ci benn marché wala kenn kuy fayu patante su ko délégué yi nee génnal génnul na woo président départemental Thierno Ciss mu woo délégué yi marché yi nekk Thiès yëpp nu jajaloo génne leen bu kenn fayati benn taxi li fekk ñu ngi faar ci dëkk bi tant que yi arrêté wul kenn du fayati juuti kenn du fayati patante na foire bi tas na fi Alioune Sow jógee ndax sonal nañu lëjal nañu. di conseiller ci municipal bu Pape Diop maire est ca laa bokk waaye lii Alioune Sow di def ci cee bokkul tay bokkuñu ci ëllëg ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg ndax ay jigéen lañ di daan suñ doole ci marché yi nag yaakaar marché yi bu tabaski ñëwee ñu jël suñu bagage exposé bu korite ñëwee ñu jël suñu bagage exposé Aline Sow dox suñu digganteeg dëkk bi jël Maimouna Samb favoriser ko di ko autoriser foire loolu duñ ko ci bàyyi tey duñ ko ci bàyyi ëllëg luñ ci góobe gar bañu ci dara ndax muy neex ñu muy naqari ñu na ba duñ ci def duñ ci def leen barke sëñ Bamba bañu ñu ci dara dañuy dem ba mu jeex dañ ciy dem ba mu jeex ñun waa marché Moussante dañ ciy dem ba mu jeex ñun gaynde yi xarekat yi nangoo defanta ba mu jeex